dégg oustaz Alioune Sall euh, da koy dégg muy delloo ñi ci yàlla waaye itam euh, nga nekk conseil économique social et environnemental tey mënuñu tudd mënuñu la tudd te suñu xel dem ci politique mu di euh, statut de Dakar ñu ngi Aminata Mbengue Ndiaye dafa def benn proposition mu di ñu fexe ba di euh, euh, li nga xam ni moo di maire de Dakar ñu koy nommé yow loolu loo ci xalaat. waaw man de li ma ci xalaat mooy politiciens yi loolu du leen arrangé xeet bi tam loolu du leen arrangé noonu li ñu arrangé mooy ñu doon doxale nu doxale ko am na ñoo xam ne na leen peuple bi fal am na ñoo xam ne leen waa dakaar fal. waaye bu nu ko bàyyee président muy tànn wala ñu bàyyi ko njiitum réew muy tànn yooyu daañu dem ba mu yàgg ñu ne ah lu nii démocratie daa am na muy doxee lii mën na la gënal mi gënalul xeet wi ku jiitew xeet da nga leen di bàyyi xel waa wa amruhum shura baynahum waaye soo xëyee xëy rek daal ne léegi na président di fal ki nga xam ne mooy nekk maire de Dakar loolu politiciens yi xaw ma luy joxañ baag fu mu jëm waaye li gënoon mooy nu bàyyi leen ndox la rek moo gën a teey ci penc bi mooy gën a stable mooy gën a dal te ñun suñu réew mi dal la soxla ak ko tekk te lool mën na koo jur ku nekk loo am jël ku am sa teg fi ki am candidat teg lu waaye am jël te kenn ku nekk loo amatee ñu yéene la ko te dox ci sa ginnaaw fas yéene am ndax yàlla mooy fal mooy falli nit mën naa bëgg a falu sax far du ko fekki benn muy wéradi wala mu génn àdduna ndax ci biir programme yàlla ñu dox jërëjëf ci sa laaj bi xalifa euh, Sall moo fi nekkoon maire Ndakaaru euh, ci temps Abdoulaye Wade te muus ñoo dégg ñuy nommé loolu bi xa euh, Macky Sall ñëwee gis nañ ni dañu dikk rek bëgg a galfaañ mbir mi ndax ñàkkoon ni jàppoo ni ñàkk nga xam ni moom la pouvoir bi di ñàkk Ndakaaru moo tax ñu bëgg a def noonu. waaw politique moom ay analyse la rek da ngay analyser mooy analyser suñu technicien bi di analyser waaw kenn ku ne ni ngay gisee rek période bële lii moo xewoon période bi lii moo xew kon naa période bi lii moo xew. moom daal li xeer bi wax daal xeer bi ñoom ñoo ànd ne leenu gënal léegi nag référendum yeeg euh, wate yeeg élection yi yëpp mooy war na ñoo ngi ci démocratie suñ ko fi jëlee rek démocratie daal tàmbalee yàqu te bu démocratie yàqu ci penc mi du baax munu jik jërëjëf. Oustaz euh, jamono yi ñu nemme ko ci biir réew mi violence ci bëri na lool bis bu jot nga dégg ñu ne rey nañ kii faat nañ kii wala agressé nan kii euh, loolu ban gis-gis nga ci ban jàngat. waaw ñun suñu réew dañ dul fayul ko tooñ. loolu moo andi lépp dañ dul fayul kuñ tooñ ndax alxuraan daa wax ne kuñ tooñ nañ la fayul mais bu fekkee yow dañ laa tooñ te kenn du la fayul boo léegi da ngay fayul sa bopp loolay benn bu ñaar ba bu wóor ne boo kenn du fay ci yow ñemee tooñ te tooñ baaxut penc bi rek la bu ñuy wax naan dañuy wax ne peine de mort nangam peine lan mooy peine de nañ la fayul yàlla loolu nag yàlla ko wax ci alxuraan benn ñu gëm ne yàllaa ko wax wala ñu ne waxu ko. wala alxuraan ne amul alxuraan ne walakum fil qisaasi xayaatun yaa ulil albaab li tax rey mën fee jóg ngeen dund ci sécurité ku bëgg nelaw nelaw ku am alal ñu sàmmal la ko leen rek ko mën a jële ñu ne lan mu ne kuñ tooñ ñu fayul la yàgg si technicien bii tey bu fekkoon mooy sa grand frère mu def la dara nga ñëw boole ko sa papa sa papa ne la day foo rek mu ñëwaat defaat la dara nga wax ko sa papa mu négligé une troisième fois loo néew néew doole bu la ko defee da ngay fayu mënu ci dara parce que loolu mënul lañ mooññi nit mooy lan mooy pénc moo xam ne ku fa tooñ kenn du jàpp sa loxo kenn du la def dara léegi pénc bi day neex a tooñe fi ne rey gi càcc gi dorob bi yàmbaa ji nangam ji nangam ji nangam yooyu mën nga ko lim ba mbari lool loolu rek moo ko waral mooy ki tooñ leen dul sanctionné léegi nag bu fekkee penc mi ku ne sañ na fi def nangam bitim réew fu nekk sax comme neex boo bëggee tooñ nga ñëw fi tooñ jàmm na ñooy yàlla yàlla dimbali. Euh, oustaz beneen xew-xew am fi mu di wàllum viol di sakkuteef euh, ñu fan yi ñu nemmeeku ni am na kenn ci ñi ñu wax sëriñu daara. ñu xawoon ko tuumaal ñu tuumaal ko sax laay wax ci wàllum sàkku ay xale yum doon jàngal ba ci bërki dem bi tamit am na tubaab buñ ci jàpp fii ci dakaar Sacré Cœur moom itam ñu tuumaal ko ci xale yum doon sàkku loolu yow euh, ban gis-gis nga ci waaw bu nu gëstoo ba gis ne sëriñu daara bi moo def loolu sanction yi ci pinc mi sunu borom nee na bu leen ko teg benn ñaari ngeen koy teg bu ñu gëstoo ba yëg ne moom moo ko def alquran daa wax ne man yaati minkunna bi faahishatin yudaaf laha al azaabu difayni soxna yonte bi la ko waxoon ne leen ku ci def yéen joo soxna yonte lu ñuy tere su ma dee dóor ñu fukk yar yéen ñaar fukk laa leen di dóor kon suñu gëstoo ba yëg ne moo ko def su boobaa sanction yi loolu la ci lislaam wax léegi nag mu des nag lu mel ni viol te yéen xam naa sax ngeen di noyal baat bi naan sàkkoo ak ñoom seen yooyu parce que siif lay tudd siif siif jigéen su boobaa comme lu garaaw la nañ ko gëstu ba mu leer ne effectivement moom la seet ba xam sëriñu daara la kañ la ubbi woon daara ji ndax jamono yi ñuy wax nii fekkoon na ko yor daara ñu gëstu ba gis ne lii moom la loola moom kenn du ko jéem a défendre déedéet li ñu wax rek mooy sanction yi daa war a tàmbalee ci moom ba ñëpp xam ne lii kenn waru koo def rawatina nag bu ñu nee sëriñu daara ñun ñëpp it nag ñooy am kersa ñun ñun ñu ñu ay ay sëriñu daara ndax bu dara xewee suñu biir dana ah gaa yi lii seen mbir la ñun ñëpp ñu takk ndeysaan moo tax ñun ñëppay rus waaye daal yooyu daal war na fay jóg tubaab ba def na kook sëriñu daara ba def na kook sénégalais ba def na kook koo ci ma a def rek war ngaa yëg ni li ngay def dañ koy tere jërëjëf. loolee ñuy tuumaal sëriñu daara bu fekkente ne am na dina gàkkal deerub ñiy jàngale alxuraan waaye itam ndax loolu du tiital way jur yi ngir ñu bañ a jël seen doom bi di ko yóbbu ci daara ji waaw loolu tax may wax na nañ gëstu déedéet daara yi moom lu yàgg-yàgg daara rek lay doon barab bi jàng ko ay alxuraan yi lu yàgg-yàgg moom lay doon lii daa xew ci daara yi kon du ma yóbbu sama daara kooka nag mu daa far tooñ daara nag ndax penc mi ñoo dul xàmmee yarkat jàngalekat sëriñu daara ndax fu mu gën a yombe moo leen gënal nañ débarrassé wu ci xale yi rek nañ dem loolu nag kenn ko def bu jenn waay ñu ubbi fii rek nga daal di fa jël sa doom daal di koy jox ki nga jox sa doom ji kan la te itam état bi daa war di toppatoo ba xam ku ubbi fenn na da ngay jàngale est-ce que sañ ngaa jàngale est-ce que am nga autorisation est-ce que compétence yaa ngi fi est-ce que locaux yi war sax war nañu fay jàngale donc bu ñu ragalee def yooyu yu mel ni ma fi am booy bëgg ubbi école privée fran bu français dafa am këyit yu ñu lay laaj am déet somme bu ñu lay laaj autorisation ah euh, déclarant responsable bi ay diplôme am nangam soo ubbee ñu xam ne kii moo ubbi barab sàngam ñu mën di saytu njàng mi di respecté li xale yi di jàng mais daara moom ñu bàyyi ko nii rek comme ça mu nekk loo xam ne li lu informel la comme neex rek ubbi fenn euh, dajal fa say xale ñu naan daxala dugg na xaraja génn rek loolu tam munte demee noonu waaye loolu war warta yàq nag ñu jàpp ne kon kon kat daara yum yëpp nii la mel déedéet bu fekkee mbubb dafa am ab tilim tilim duñ sànni mbubb ma dañuy fóot tilim tilim ba passé mbubb ma solaat continuer jërëjëf ci salaat bi ndax tey comme man ji comme ni ñuy xoolee école tubaab yi ni ñu ni koy jàppee école français comme fi ñu jàngee ñun daanaka moom la ñu gën a toppatoo que école daara ndax kon amul mënu leen xalaat rek ni njiit njiit yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi dañoo am parti pris ci wàllum école yi. waaw daara de moom yal na ko yàlla yërëm daara yal na ko yàlla bi tubaab bi di ñëw ci réew mi di ñu coloniser xaw ma sax bàyyi na comme di dem léegi ba tey yaakaaruma ko waaye daal bi mu ñëw di ñu coloniser. dafa ñëwoon gis ni daara mel daara déranger ko mu taal daara yu bari rey sëriñ su bari sàngi sëriñ su bari songu sëriñ su bari lool nag daf noo topp ba fii nu toog daanaka mooy suñu penc dañoo defe ne njàngum alxuraan daf noo jëriñul dara xanaa ilimaan waa bilaal ñun loolu lañ xalaat bu dee njàngum tubaab nag dañuy defee ne moom danañu amal njariñ ndax mën nañ cee génne ay ministre ay député ay gouverneur président loolu mën nañ ko cee génne moo tax xaay bi la defee fii na lu ñu fi def dara loolu nag daf noo topp ba dimb yal na ko fi yàlla jëlee jërëjëf. ndax yéen yéen yéen ñi nga xam yéen jiite daara yi ndax yéen a ngi def ay jéego ngir loole mën a ko waaw jéego yi kay bañ amee indépendance bi léegi ci lañ nekk ndax la tàmbali woon ci ñoom Hadj Moustapha Cissé jaar ci Abdoul Al Amin jaar ci ñoom Cheikh Ahmed dem ci Jurbel jaar ci jaar ci bu ku ko lim jum ku ci nekk sa jéegu guddi ak bëccëg moo doon daara yii am sañ-sañ ci pénc mi bu ñu génnee te budget quarante pour cent daara am 20 pour cent école am 20 pour cent ñu dem loolu lañ mënta am ba bi suñ jonte ji daara amul daara daara daara lu jóge ci bi état di ñëw ci daara xawuma ko xanaa individu bi jël xaalisam wala ceebam mbaa suukaram yóbbu ca daara ya loolu laa ci xam léegi nag nun xakay ah, noo ngi dox ci loolu teewul nag ña nga samp suñuy daara fexe ba daara ji nekk daara jox ne xale bu fa ñëw da nga lekk lu baax di di tëdd fu baax ñu wutal docteur bu lay faj wutal gone yu lay toppatoo loolu nag ña ci waaye ab ab euh, am réew nag moo ci war na jiite wala ab état moo war na jiitu ci loolu ñu topp ci ginnaawam 40 pour cent budget bi ñun ñëpp ci dugal suñu loxo yow mii sa caméraman bi ak seen chauffeur bi yéen ñëpp yéen ci dugal sa ak ak man mii léegi nag mu ci dugalee suñu loxo nag ñu ñu teq ca 40 pour cent ya daal ni ñiy jàng tubaab ñoo ko moom kumba am ndey kumba amul ne nag yéen wuti leen lu ngeen def nga yalwaan ñu ne déedéet nga dugal ci koñ bi ñu ne déedéet do sëriñ ba yalwaan ñu ne déedéet léegi nag loolu loolu dara gën koo métti shukran lan nga yaakaar ni moo waral euh, ñu kumba am ndey ak kumba amul ndey am ci daara yi ak école français. tubaab bee defee ne njàngam alxuraan jëriñu ñu dara xanaa nekk ci jàkk ja. wala nga nekk bilaal loolu lañ yaakaar ne moo jariñ fekk na au contraire tarbiya bi am ci nit ba mu nitee buñ ko dénkee kees du ko lekk tool na fii jamono bi ministre daan jaar daara jóge daara ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw école boobu daaw dégg këpp kees de cent mille francs sax administrateur daaw ko daaw ko jëkk jël ci keesam léegi dinaan diw jël na milliard diw jël na milliard bu bu bu yi génnee da ngay tiit bu rapport yi génnee da ngay tiit ay fukki nit ak juróom-ñeent ñaar fukki fan fanweeri nit. jërëjëf Oustaz lan ngay tàggatoo li may tàggatoo mooy ñaanal leen euh, Sénégal set nit ñi di topp yi ngeen di def te itam sponsor yi ñëw sponsorisé ko ba ngeen mën a am lu ngeen di euh, tuxoo ka dem barab sàngam ak fu ngeen bëgg taataan dara taataan ko fa yàlla may leen xel yu leer nañ xol bu leer boo xam ne dangeen ngeen mën di poser question yi ngeen bëgg. te leen di dajaleek ñoo xam ne ñoo ma gën a leeri xalaat gën maa rafeti xalaat ndax yi fi gën a yaatu yàlla mën na ko sañ na ko yàlla na ko def yàlla na yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir ci def ci sunuy poos dara in uridu ilal islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu